because uh, the Chief of Defense Staff, Major General Yakubai Drame, uh, is to embark on phase uh, tour of military installation across the country Following the completion of phase one on Friday, the CDS is expected to cover GAF deployments in the West Coast region and the Greater Banjul area on Monday and Tuesday. The GAF chief will be at uh, uh Infantry Battalion in Kanilai, where he is expected to address troops in the uh, morning rather before proceeding to the uh, to border ports in Sibanor Block and Kafouta euh, waaw mu ngi noonu euh, moom euh, Major General Yakuba Dramé moom moo jiite ami bi ci réew mi jamono ji mu ngi dem di wóor ñenn béréb yi nga xamante ñu ngi ci réew mi mu nekk ay yi nga xamante ne soldats yi foofu lañ nekk pour dal di waxtaan ak soldats yi seet nuñ nekkee ak yumel mel noonu tey nag war naa commencé phase two bi mooy ñaareeli tànk bi ci wóor boobu bi nga xamante ne door na ko war naa nekk dem ci West Coast Region euh, mu dooree ko foofu ci Kanilaay den mu dem Bloc ak Sibanor euh, ci li nga xamante ne mooy ci dox bu mu nekk mu nekk tamit euh, li am solo gis nañ ne dim bi ñëwee ba léegi daanaka toogul mu ngee dem di wor di daje ay kilifa yu bari ci réew mi te tamit bokk na ci saa yi noo ci ñenn ñi nga xamante ne mooy ay kilifa yu yu mag ci réew mi tamit waxtaan ak ñoom ci situation security bi ak yu mel noonu foog naa ne initiative bu am solo la waaye phase two bi mooy mu ngee dem ci ñi nga xamante ne tamit ñoom la jiite pour seet nu nekkee waxtaan ak ñoom euh, daal ci ci li nga xamante ne mooy ci doxaleen xëy na bu mu bugg a indi ci ci bi. lu am solo Amadou nekk na lu am solo parce que euh, jaama daal moom fekk amul ci réew rek. Mhm. dara du fa mun a dox te lii bokk na si jàmm parce que ñoo xam ne bu askan bi di nelaw ñoom ñooy aar. Mhm. dëgg yàlla mooy aar dafa am lu muy teg ba pare gos am na fu nga xam ne nii moom su fa doomu aadama nekkul rek comme que yàlla moo doomu aadama moo ko fi ut rek su aaree moom moo aar waaye doxalin bi am na solo bu baax a baax dem seeti ñi nga xam ne ñoo nekk si si kaam yi ñuul seeti leen dafa am solo waaye itam bàyyi leen xel dafa am solo bàyyi leen xel dafa am solo parce que ñooñu am na lu lépp lu nga xam ne war na si ñoom seen àq ak seen yelleef Amadou nit ki ak nu mu soo ko joxee nit ki rek dina xam moom mooy kan te dina li ko war dina ko def ñu noonu nekk si poos yi wala ñu nekk si kaam yi si àll bi ñooñu ñëpp lépp loo xam ne dafa war si ñoom njiit li askan bi am neen si moom yaakaar nekk na façon nit bi nga xam ne depuis ñi euh, fal ko si kanam soldaar yi ba léegi askan bi dañ dee waxantoo mbiram ku ñu am yaakaar la nit ku dëggu la nit ku honnête la soo loolu nag xam naa ne soo gisee ni ñu wax ko dañ ko gis waaye daal lu ma wax mooy ne ñu nekk si kaam yi fii ba Kudang Farafeñe Basse ak fu munta nekk ba si poos yi yëpp léewu li nga xam ne ni loolu nguur gi dafa war a doxlante moom ak dafa dafa ko dafa nekk seen diggante na ko doxal jox leen seen àq ak seen yelleef delloo leen seen cër lu ñu war a am neen ko am su ko defee kooku li muy def dina si sawar pour def ko bu baax te xam ne seen responsabilité pour ñu aar réew mi parce que tey yow da nga ñëw nekk journaliste ñoom ñu tànn loolu kon nag loolu juutis boobu ku nekk ci ñoom daf ko war a mottali waaye tam nag li war sa diggante ak nguur gi li war seen diggante dañ ko dafa war a mat ñi sàmm ko bu baax a baax waaye moom ko askan bi am yaakaar la te am naa yaakaar ne xam na loolu te dina ko doxal waaw. exactly ndax uh, njiit bu nekk bu ñu la toggee ci palaab dafa am lu yaakaar ci yow. Mhm. tey foog naa ne yaakaar yooyu bokk na ci mu jiital ci waxtaan xam tamit situation bi ak bi donte ne sax mu ngi ci woon. Eh, ndax moom moo nekkoon yaa gën a nekk député CDS ak yooyu. waaye mhm. tey moom moo nekk ci bopp bi foofu mu gën a indi beneen taxawaay ci yëf yi jul de mooy sa reading si situation bi eh, comme eh, CDS ñu gisee right now mu ngi koo doxalee gis nañ ne ba ba dem na sax si meyo yi mu ngi waxtaan ak ñoom. Mhm. dem na fii ñi nga xamante ne mooy I think GRA waxtaan ak seen kilifi gouverneur yi yëpp oh. mit na leen. Mhm. foog naa loolu yëpp mu nekk beneen initiative système bi nga xamante ne moom la bëgg indi rax si biir xëy na bëgg a ñaale nit ñi ak kilifa yi ak ami bi pour mhm. liggéey bi gën a ratax waaye tamit mu nekk lu am solo Ah, am na am na solo. Mhm. Ah, bi kii si kiyoonci bi ah, man dama ko dee taamu de wax saa ne moo nekk si nit ñi lañ bokk. Mhm. si kër yi lañ jógee. soo dafa am solo torop bu ñu leen gis isolé ñu gis leen as ñoo xam ne you know foreigners lañ oo oh, bokkuñ si ñuñ mhm. si ñuñ lañ bokk. digga la 22 years bi ñu bari dañ leen alleged to have. Uh, committed human rights violations and the others mm -hmm. but security sector reform bi dafa ñëw pour mu make sure ne loolu noonu mu address façon yooyu noonu security bi luñ ak ak yelleef yi ah, citizens si ah, am na solo kom noo ko waxee rek moom nekkul gan si mbir mi hmm. yàgg na député léegi moom moo nekk head of the ah, affaire moo nekk CDS bi so am na solo trop pour mu mit ñu moo liggéeyal mu xam gaay gaay ñu xam ko ñu build that trust ak confidence between them soo gisee liggéey bi mu gën a yomba waaye fokka army bi mu feel like ñoom dañ leen isolate wala ñoom dañ nekk loo xam ne ñu leen jiite faale wut lañ am na ñuñ faale ñu du ñoom because gis nañ ne si TRRC bi sax ñu bari soldier yu bari ñu ngee ñëw di wax ne coup d'état bi sax sometime ñu ko gana mayloo you know doole moo nekk ne like because of the foreign troops hmm. Nigerian soldiers yu fi nekk gaa ñoo leen gana ñoom lañ gana value than even the Gambian soldiers so mu nekk loo xam ne ah dafa doy waar dafa am solo dafa strengthen that relationship between them and dafa make sure ne tamit am yi tamit dañoo restore that confidence they have on him and they will be ready to work for the country rather mm-hmm. than for individuals loolu ah, dafa am solo torop suñ security personnel si the moment ñu xam ne ne okay man nguur bi laa ah, Gambia laa nekka di liggéeyal nekkul président Barrow o Yakuba A Drame waaye it is a social responsibility as a me as a citizen as a security personnel to protect my own people to protect my territory loolu dafa nekka loo xam ne dafa am solo absolutely absolutely wax nga lu am solo te loolu mm-hmm. uh, Mm. soo ko bàyyi xel te moom ak euh, ministre of defence mm-hmm. am na relationship bu baax te ñoom ñoo ko ñoo ñoo bokk tool bi su suñu amee relationship dafa baax mm-hmm. waaw eh, exactly te moom sax euh, ñu bëri buñ ko tànnee am nañ yaakaar ci moom comme niñ ko waxee ne dina indi beneen changes ci système bi euh, te loolu am nañ ci yaakaar bu baax ci moom daal mu ngi noonu moom Yakuba ay drame njiitali ami bi tey la war a continuer phase two mooy ñaareeli tànk dox bala nemmeeku bi nga xamante ne mu ngi koo def ci ci biir réew mi te ñi mu jiite ñoom lay nekk di seet seeti seet niñ nekkee ak yooyu